mu mel ni suba la CAF Award bi euh, euh, fii ci Sénégal organisation bi nag indi coow lu bëree bëri parce que dañ ñi dañ ci dépensé un milliard de francs CFA comme budget donc ñii ne loolu lu baax la am ñan ñu koy ŋaañi yow nag ñi buggoon ci am ci sa xalaat yow ban jàngat nga am ci loolu. Euh, loolu dama koy door di naan lu ñaaw la te dafa am fu ma ko teg lu tax mu ñaaw. Euh, dama lay jox rek benn firnde moment bi nga xam ne Sénégal état du Sénégal mu ngi jël un milliard di koy jox kaaf ci moment boobu la ñaari clubu Sénégal doon dem Coupe d'Afrique des clubs fële ca Maroc état du Sénégal jox kaaf un milliard jël ñaari équipe bu Sénégal yooyu joxu leen. mënu leen a jox trent ku ci nekk trente billets d'avion ba équipe yooyu dañoo tardé bi ñuy dem Maroc moo tax ñu éliminer leen ci moment boobu la yow ngay joxe ci biti fekk yow ci biir sa kër munoo dundal sa waa kër loolu mooy yëfu tappale loolu loolu mooy lu ñaaw beneen mbir bi nga xam ne moo am ñu ngi ma naan ay vendre destination Sénégal kaaf nangam ñëpp waa mais dama Et pourtant, le football professionnel, biñ ko créé dix ans ngi nii mu ngi créé moom day créé na depuis bi mu fi créé créé na au moins créé na au minimum cinq mille emplois waaw yow kuy créé cinq mille emplois ba léegi musoo ko jox ngay dem di joxi kaaf ay ay cinq cent mille ay un milliard di naan loolu yëpp nag politique la rek parce que Macky Sall comme que mu ngi waajal euh, xanaa gisoo gis nga yéen boo di xoolaat sax da ngeen étoo ni mu ñëwee ni mu waxee mois je vote Macky Sall gis nga yooyu yëpp ay yooyu yëpp c'est c'est c'est organisé c'est orchestré. waaw ah, nee moom pro Macky la. waaw doo dégg loolu yëpp c'est orchestré gars yi dañ ko orchestré pour seulement euh, campagne day euh, Macky day defaale campagne. Macky amul benn njëriñ football local football équipe nationale rek lay kii politique mais football local amut xoolal xoolu ko lijjantiwu ko parce que musul demal laaj waa football local euh, état du Sénégal mësu kaa defal dara balaa maa de ñu ne mu ngi koy jàppale indirectement ak stade yi tabax na ay stade pour gars yi di football mais yow club bu Sénégal yi lan moo tax ñuy toog premier tour kii Coupe d'Afrique amuñu amuñu moyen. yow déjà yow sa budget mënoo fexe ba satisfaire euh, le sport sénégalais sa dëkk nga naan da ngay dem di joxe ay un milliard ci biti xam nga loolu yëfu tappale dëgg mu ngi noonu. mu mel ni CAF Award bi tamit bëri na coow ak dualité entre Sadio Mané ak Salah ban jàngat nga def ci loolu. xam nga lan la euh, man Cheikh Tidiane Gomis maa gën a bëgg Sénégal jël ballon d'or bi ko El Hadj di jël dama cee kontaan waaye El Hadj Diouf bi muy jël ballon d'or ay critères yu wóor moo ko jëlloo ballon d'or damay wax CAF Award bii euh, ballon d'or bii africain bii man boobu bu fekkee dañ ko teg ci critère parce que ñaari critère moo am critère de critère lenn moo am critère de performance performance individuelle performance collective pour dee performance collective ñoom ñaa ñoo tolloo ñoo bokk équipe Mohamed Salah ak euh, Sadio Mané ñoo qualifié ndoo dem Ligue des champions actuellement ñoom ñaa ñooy premier ñoom ñooy premier euh, Angleterre Premier League bi dégg nga ñoom ñaa ñëpp demoon nañu coupe du monde waa léegi ah ñoom ñaa ñëpp tolloon nañu fan lañ koy léegi nag ci critère individuel la ñuy ñëw foofu nag. Mohamed Salah moo ko gën a kii dañu wax dëgg meilleur buteur bu championnat d'Angleterre Sadio Mané nekkul buteur ah man de foofu de dëgg dëgg nag maa gën a bëgg Sadio Mané waaye nag dama ne bu dee logique rek waaye nag dama lay yëgal benn affaire nag de kaaf kaaf ñi fa nekk dañoo doy waar dañoo capable lépp dañuy politique ñoom tamit. dañuy politique. attan nañu def loo xam ne fii def ay affaire xam nga ñoom dañuy euh, c'est que. Euh, kaaf dañuy def ay affaire yoo xam ne mooy que lu neex état mën nañu toog rek bu saa jël kii bi rek jox ko Sadio Mané de. kon yaakaar nga ne yow Sadio Mané waru mën a gagné affaire bi. non non sincèrement mooy critères yi ma la jox man de dama wax sama dëgg bëgg naa nag waaye neexul ba neexul bii buñ koy xool ci critère de performance bi ah Mohamed Salah lañ koy jox moom loolu la de man de man man nag man man moom. daa man moom dëgg-dëgg man loolu laa gis dama ko jëlee nag ci critère de per bu fekkee ne du ci critère de performance nañ ñu ko teel a wax parce que loolu la ñu wax ci kii yow gis nga ballon d'or euh, euh, européen Modric ak nangam du wa ah, du gis nga waaw gars yi nañ ko teg ci yoon. boobu mu mel ni am na beneen international sénégalais muy Kalidou Koulibaly boo xam te ne dund na lu metti bis yi ñu weesu ñu ko doon yuuxu ci affaire racisme ak yu demee noonu ban jàngat nga am ci loolu rapidement. xam nga dama lay wax benn affaire du guleet affaire racisme yuuxu yooyu ay sànni banaana Pape Koli Diop gis ngeen ko fii championnat d'Espagne ñu sànni ko euh, kii euh, xaw ma ñu sànni ko banaana dégg nga loolu yëpp dafa yàgg am ci football bi ku amul benn noir noir yëpp euh, kii loolu waaye lenn rek jàngat bi ma ci am mooy que FIFA ci boppam FIFA ci boppam man dama jàpp moo am moo jël ay sanctions yu wóor ci affaire racisme bi FIFA bu ko jëloon defe naa ne lii duñ fi toll parce que depuis quand ñu kii koy ñoom daal dara réglé wuñu ci affaire racisme bi parce que c'est pas joli saa yu nekk gi nga bi jeex na dinañ toogaat léegi ngeen gisaat beneen te ñoom saa yu nekk dañu wax a jël équipe bu ko de fédération euh, sa bu dee sa dëkk bu ko def ñu sanctionné la mais nañu am ful loolu kese la de problème bi loolu la waaye nag. li may wax nag joueur afrique euh, noir couleur noire joueur yi dégg nga dafa am benn euh, mot boo euh, phrase boo xam ne Kalidou daf ko wax je suis sénégalais loolu am africain xam nga loolu la yow bie ba nañu yuuxu yow wanal sa bopp te fu ñu la yuuxoo xamal ne da ngaa aay